Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. wa rahmatullah mbokku sénégalais yi nuyu naa yoon di inna lillahi wa inna ilayhi rajiun salaamaaleykum wa rahmatullah sama gars yi ngeen partagé allah ku dugg nga partagé affaire yi damaa mënta comprendre dafa mel ni gisuma kenn asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw sama gars yi Euh, siyaar naa leen beneen yoon yéen mbokk sénégalais yépp nag te di leen ñaanal jàmm te di leen wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci xibaar bi nga xamante ni si déglu na ko muy Thione Seck yal na ko yàlla yërëm allahuma afir warhamhu waa ñun nag euh, defoon na ay vidéo ci moom ndax ñun ñoo bokkoon di dund ci àdduna gi nekkandoo ci àdduna gi tey jii tey dem na ci kër gu dëkk dëddu àdduna gi dem ci kër gi nga xamante ni si këru dëgg la euh, jamono yi ñuy wax ci moom nag jamono yi da doon dund ak ñun ñu gis ay yoo xamante ni si ci réew mi jàpp nañ ni gënu ci réew mi foofu rek lañ doon waxee moom moo tax ñuy sàkku bépp seenu YouTube boo xam ni te dugaloon nga sunu wax yi nga xamante si ñu ko doon wax ci Thione Seck ci contre ko ci benn côté ci ay xew-xew pour bu ñu ko mënee dindil ngir yàlla ñu dindil ñu ko incha allah ñu ngi koy sàkku nag ci bépp seen youtube incha allah yoo xam ne jàllale nañ ko facebook bi moom incha allah ñun mën nañ ko effacer ndax fi ñuy defee live yëpp bu bëggee effacer sunu live yi mën nañ ko xool ba gis ko ñu effacer ko mais ci youtube bi daal ñu jot a jàllale. ndax euh, yàqu-yàqu yooyu yëpp tamit maanaam ñu doon wax ci jamono yu mu fi nekkee rek la jeex na loo xamante ni si après bu jàllee jàll na ndax boo xoolee wàllum musique ak wàllum way moo doon loo xam ne ci mbirum àdduna kase la yam te ci àdduna la yam ñoom mënuñoo yàq dara loo xamante ni si maanaam luy continuer lay doon ñu ngi koy ñaanal njéggalug yàlla ak yërmandeg yàlla di ma saw coono tamit fameem tamit naan leen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yii nag tamit euh, yeneen moroomu waykatam yi war nañ ci bàyyi xel ndax yàlla suñu borom ba mu bindee dee la njëkk a bind teg ci dund di xool kan moo gën a rafet jëf ñu xam ni àdduna gi dañuy dem bàyyi ko fi après ñun la ak suñu bàmmeel te bàmmeel mooy këru dëkk mooy fi nga xam ne kër gu mujj kon may jox conseil ku mel ni Youssou Ndour nga xamante ni si moom ab waykat la yàgg na lool ci way ak ñoom Baaba Maal ay ñoom Ismaïla Lo paa yooyu ñu xam dëgg yàlla yàgg nañ fii lool ci àdduna gi yàgg nañoo way yàgg nañ dugg ci ay boîte di jaxase ay góor ak jigéen kon boog lii dafa war a doon waaraage si ñoom ñu xam ne ay mag lañ nañ dem jaam ji yàlla te bàyyi seen way yi ñu nekk ndax baaxul li di def ni baaxul rawatina ci mag way ba dee moom yàlla ci yàlla musal kon Youssou Ndour boo xoolee say at surtout yow nga xool say at ak at yi nga toll nii nga génne jëlal ñaar fukki at rek nga tegaat ko sa kanam ak ñaar at ni mu gaawee bu jëlee vingt ans nga tegaat ko sa kanam nga xool yow après ban façon nit ngay nekk yaakaar naa ni di nga bàyyi woy de yaakaar naa di nga def bokk bi te diggante boobu it lu nekk xaj na ci yow moom yemoo sax ci wàllu way dong waaye ci wàllu réew mi ni muy tëddee ak ni muy doxee ci yàqu-yàqu yi am nga alal gu baree bari mais li nga am vingt ans boo tëddoon sax bañ a liggéey te bañ a def dara sax mën nga cee dund vingt ans dimbali ci ay nit tabax ci hôpital tuubal dellu ci yàlla sa alal gi nga jéem cee yërëm askan wi waaye yow doyuloo doyluwuloo yow chaque jour luy xar saraxe askan wi rek wépp yàqu-yàqu ci askan wi yaa ngi koy def sa télé yooyu lu bon rek nga ciy wane ay xawma lan kii nu mu tuddati seen théâtre film bu bon boobu est-ce que xam nga ni film yooyu ngay kii noonu maanaam film yooyu nga xam ne yaa ngi koy doxal ak théâtre yi est-ce xam nga ni même boo faatu woon tey képp ku ci infidèle képp ku ci yàqu képp ku ci ak bon est-ce que xam ne dalay fekk sa bàmmeel est-ce que yooyu yëpp yaa ngi koy suuraale ak ànd ak système bi ànd ak politiciens yi say intérêt bopp te li nga am ci alal moom macha allah war ngaa tuub war ngaa dellu ci yàlla war nga xool luy jariñ sa askan nga dabu ak mbaax pour jéem a jariñ sa réew pour jéem a jariñ saw askan pour loo xamante ni si duñ ci am gërëmal yàlla hôpital yaag jàpp ci liggéey Sénégal bu baax a baax xam ne li nga am lépp yaa amee ci turu Sénégal ci hôpital ya jàpp ci lu baax te nga xam ni maanaam boo deewee alal gi danga nga fi bàyyi rek ñu lay delloo ragal yàlla te di la xamante ni mag nga ak mag yi fi nekk yu baree bëri màggetu caay-caay yi fi nekk bari na trop magu saay-saay yi waaw doy na rek kooku noonu sant ñas nga xam ni nekk ci gouvernement bi mooy loolu moom tamit wax dëgg yàlla ay mag lañ yoo xam ni maanaam seytaane daf leen a fëkk daal Moustapha Niass xaw ma lu mu am ci doomu alal lépp seytaane fëq leen maanaam ba da ngeen di fàtte dee loolu mbirum seytaane la moo leen nax ba da ngeen di fàtte dee mais boo xoolee ay mag ngeen de yàlla xam na loolu jël leen ñaar fukki at rek teg ko xam naa ni fanweeri at moom ku leen ko bëgg a dundaloo est-ce que di ngeen ko bëggati te xool leen fanweeri at ni mu gaawee est-ce que di ngeen bëggati dund fanweeri at ndax fanweeri at dootoo mënati dara da ngay kobidaas ay Moustapha mu waxatuñ ko moom mais ngeen ragal yàlla ngeen sóoraale bàmmeel nit ñi dee nii mu war a doon waaraate ci yéen doon waaraate si ñun lu am solo la Youssou Ndour bàyyil musique Youssou Ndour xoolal sa moroom waykat yi dee Youssou Ndour sóoraaleel bàmmeel Youssou Ndour alal gi ngay am nii dee ko dépassé ci askan wi Youssou Ndour moytul yàq gi nga nekk Sénégal ci gone yi futti ay gone di leen feccloo di leen wayloo ay ñaata waykat nga produire ay ñaata nit yoo xam ne ay modèle xaw ma futteeku yaramu neen ak film yu bon yooyu di yàq rek jàpp ni doo dee jàpp ni doo dee moo ne léegi nga dee de barki alxuraan man nga de ndax am na yoo xam ne moom maanaam àdduna loolu dund di dundu rek amut fenn te am na at yoo xam boo ko demee ba am moom mooy loolu jëlal fanweeri at rek yu si dund nga teg ko sa kanam dara jaratu ko fi amalal njariñ askan wi nga bàyyi yàq gi nga nekk ndax yow moom waykat yëpp moom boo ko cee kenn yow da ngaa dépassé woy affaire bi loolu la dangaa dépassé way dugg ci système yàq yow Youssou Ndour dugg ci système yàq système lan na njaaloo bari système lan gone yi liy wuññi seen awra système lan nañu saraxe askan wi nga ànd ak politiciens yi dugal bon di xeex dëgg maanaam na bon dugg yemoo ca way waag fekke baag mbalax baag ca discothèque ya waaye yow dangaa ñëw boole pour yàq askan daal ne Sénégal daal na bon sa journal ya baaxul ànd ak gouvernement bi di yàq dara dara lu baax bëggoo dara lu baax xeexoo ko Youssou Ndour ragalal yàlla nga sóoraale sa bàmmeel sóoraale dee dara jaru ko wallaahi ku dee di nga xam ni lépp dëgg la salaamaaleykum wa rahmatullah. abonnez sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.